ma gis ne da ngay seet di wax lu dul deñ ma déglu ay témoignages. parce que wax naa la ko. man bu fekkee lu jëm sama liggéey. damay am jot bi. waaye bu jëmul sama liggéey mënoo maa dugal lu sama yoon nekkul. dëgg la taluma ko. dëgg la te lii sama liggéey la. dëgg la may gëstu. Mhm. xool ñi nga jege. Mhm. xool ñi la wër. Mhm. xool fa nga ak ñi nga xam ne am na foo jaar ak ñoom. ñu ne ma jinne la. du wax luy deñ. ñu ne la jinne la mhm. fu mu la tegtal defal mhm. ñu ne jinne la ay saraxam ak doy waar mhm. kon da seet damay seet maa ngi ci lan ngay seetee nuyu sama mag bu góor ñoo bokk benn baay choy ka waaw ngi foofu France moom ma njëkk a indil turu ndey jinne boobu xale bu ndaw laa nekk ci daara gi rek di calli calli daara sama waaw ñun wax dëgg yàlla ñun ñëpp génnuñ kër gi sama papa da doon jël ñett jàngulee français déedéet moom daa xëy génn ñëpp école ba dugal daara ñëpp ñëpp daara ji ci biir kër gi la nekkoon dafa jëloon oustaz yi ci biir kër gi ndeysaan sama mag boobu moo ma njëkk a wax ndey jinne turu ndey jinne ba sama turandoo bi ci koñ ba ndey jinne lañ koy woo ok moo tax ma ne la yow amoo jinne jinne nga waaw mais macha allah seet seet moom sa mag jooju xool la ba xool na la ndey seet jinne nga seet waaw lan ngay seetee seet sous forme yi ma ci yor ëpp na ëpp na ñetti façon wala ñeent te loolu mën naa la ci dimbali parce que tey jii waaw portable bi nga yor nii. waaw bari na ay façon puce yoo ci mën a def. dëgg la te yëpp jokkoo lay def. waaw mais ku ne xam na nag ba ca mën. waaw ba ca ëpp doole. loolu nag dafa am ci seet. léegi. Ah. sous forme yi nga xam ne nii dama ciy seet man. waaw mooy. Euh, dinaa seet ci leket nii moom lañ ma xamee woon ci rajo ba ma nekkoon. def ci ndox def ci suuf téeñ teg ko. tiim ci di ci seet. dinaa seet ci tomb suuf pël yi xam nañ ko waaw waaw yàlla Idrissa mhm. moo njëkk a seet ram ne mooy tomb yi moom mooy tomb yi moo ko njëkk seet yaa ngi dégg sous forme yi nga xamante ni kurus dama ciy seet waaw su ma la waxee jàppal benn per dinaa dinaa dinaa dinaa jàng fatiha salaatul fatiha woo ko ma war a woo mu wax ma écouteuru baatin dafa am mu wax ma li ma war a xam ci yow léeg-léeg nag nit ñëw di seetlu doo ko gis ci méthode yooyu ah. da ngay bàyyi ba mu dem boo tëddee guddi parce que nit dafa am kuddaam hmm. dafa am rawxaan uh-huh. dafa am jinne dafa am seytaane est-ce que yi yëpp dafa ànd ak nit moo tax doomu aadama moo gën a foor looy gis parce que lépp luy doole puissance ci kaw nu bi yàlla daf ko teg ci loxoom ci ci nit waaw daf ko teg ci nit hmm. dégg nga ba pare gannaaw bi ñu mayee loolu ba pare yàlla daf ñu digal sarax gis nga sarax kuy wax baaxul wala dafa xaram nitewul parce que tabaski li ko waral sarax la. sarax la. dégg nga xaabil ak. xaabil bi ñuy xeex ci benn jigéen. seen baay daf leen tettal sarax ñu yóbbu ko kenn ki xar la yóbbu kenn ki ay ñax la yóbbu. Hmm. te dañ la wax ne la booy saraxi tànnal lu baax nga saraxe ko sarax dafay fànq deegu ñaaw. Mhm. sarax day guddal fan. Mhm. sarax dafay rafetal jotaayu kër. ndeysaan sarax dafay neexal ab ànd hmm. parce tey Jojo boo amee yàlla may la nga ànd ak sa nit doo ko may bu yàggee mu bañ la dëgg la ka euh, yàlla dafa yombal loolu ba digal ñu la ñuy génnee azaka azaka hmm. su forme sarax la te dañ la ko forcer parce que soo ko génnewul mën na di lakk say bagage ak say jaaj dégg nga gis nga bu ñu nax kenn non seet yaa ñu ngi ci seet yi non seet yi parce que dafa am lu important lu ma dëcc bëgg parce que da ne ma puce mhm. mhm. bu la neex nga dugal si téléphone waaw waaye am na bu ci ëpp doole bu ci ëpp doole a man gént moo ma ëppal doole mooy li si xaar déet maanaam istixaar da ngay nekk jàng julli affaire yooyu parce que dafa am koo ah, xam ma defe ne istixaar dafa am affaire yooyu tëdd da ngay gént waa déglu ma ah. koo xam ne dafay def istixaar pour gis yaa ngi dégg mhm. kooku yàlla mayu ko muy gëstu mayu yàlla gi pour am xam nga gént dafa doy waar Cheikh Ndiaye. torop gént nekkul dalaa neex nga gént Cheikh Ndiaye. Mhm. gént lay neex mu fëgg sa buntu kër. dëgg la est-ce que comprendre bu baax loolu kashfu lañ koy wax am na yenn tur yoo xam ne boo ci amee ndigal di ko wérd da la yàlla da lay may kashfu loolu force la est-ce que dafa am mhm. dégg nga bëriwul nag jigéen ñu koy waxtaanee parce que yegguñu ca yeggukaay ba ndax man sama papa mu ngi jokku ci Cheikh Ibrahima Niass Baye. Mhm. te Baye dafa ne sama jigéen ñi ay góor lañ sama góor ñi ay xeer lañ. xeer lañ moo tax man yàlla dogal na toujours dama naan jigéen ñi waxuma leen man góor ñi lay rëg-rëg loolu ci wàllu xam-xam. Hmm. góor ñi laay xool seeni i faux di ko di ko di ko defaraat. di jag seen i jàmm jàmm dinañ ci wax de. waaw mhm. léegi nag. ki nga xam ne dafay istixaar mhm. julli ñaari rakk jàng faatiha ndangam ndangam kooku mi ngi def ay yitte pour gis affaire Cheikh Ndiaye waaw mais man dafa naturel damay weer julli ba pare tëdd nelaw billaahi wallaahi taalaahi lu ma gis ci loolu fayee ko bor hmm? billaahi amul benn muskila kay te ku ma ko wax ci samay bokk ñi ma xam ñoom xam nañ ne duma ma gisantu euh, élection maire yi passé mhm. yére bii laa soloon. waaw loolu yàggul dara ku dugg impro da koy gis. waaw ma yeewu ne leen Barthélémy Diaz mii. ñuy doye dal ñaan santam ñetti ñetti sant laa ñeenti sant. dinaa ci ñëw ren jii day yéeg fu kawe. ci lañ dafay jël maire Dakar dinañ ci ñëw après. xam nga loolu yàggul dinañ ci ñëw ndax gis naa ko. booy ñaa ci yow. booy ñaa. Mhm. bañ ma tuddalee turam. dama ne leen Balla Gaye affaire avertissement. parce que mhm. xam naa Balla daan na ñëw ci sam waaw. kon su faral moom lay faral. dëgg la mais avertissement laa ko wax. parce que booy ñaa fi mu toll dafa yéeme. Hmm. yooyu nag dafa nekk ay sous forme yoo xam ne dëgg-dëgg yàlla dala koy wan mais dama ci ànd ak respect parce que dama naan waya di weesuwul wax luñ la wax loowul dem fuñ la dem loowu. dëgg la mbirum Barthélémy Dias. dinañ ci ñëw dañ ma cee jox de. dañ ci ñëw. waaw dañ ci ñëw maag yow baax.